jërëgeen jëf mbokk yi nga xamante ne bii yéen nga ñuy seetaan mbégte ak contentement la ñuy am ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag ñu ngi fii ci stade Ely Manel li ñu fi dajale mooy Sidi Diakhaté production tëgg journée bu mag tëgg journée bu neex incha allah mu war a am le 20 mars bu ci yàlla àndee fii ci stade Ely Manel Fall Sidi Diakhaté nag nekkatul promoteur bu ñuy présenté. ndax macha allah marqué na empreinte am ci wàllu làmb ku nekk xam na ne promoteur buy décentraliser làmb la promoteur buy yaatal làmb la loolu moo ko indi fii ci diwaanu Njaareem mu tëgg fi combat bu mag komba bu neex diggante buubu caski xale bi nga xamante ne bii macha allah mbër mu mu jàkkaarlool jàpp na ne moo la mën wante nag muy jàkkaarloog doomu Mbàkke xale bi yeewoo Mbàkke mën a bëre am fulla am fayda am gannaaw su bëree mu neex su bàkkoo mu neex man nee naa leen doomu Mbàkke bandi géew laa ko tuddee waaye nag dafa yeb client ba nga xamante ne bii fu koy yëkkalee moo ko jaaxal le 20 mars incha allah lépp dana leer wante tey présentation combat préliminaire yi fi nekk rek lañ leen di defal gannaaw ba ñu nuyoo suñu confrères yi fi nekk yëpp ñaanal leen jàmm ndax làmb fu mu fu mu àgg ñoo ko fa àggale ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax Grillage nuyu naa la maa ngi lay bëgg bëgg gaa yëpp leen ziyaara hmm. waaw kii moom jarul wax bi jarul muy gudd sax hmm. kii moom jour ba moom dina neex dina yëg hmm. waaw loo koy andil waaw laa koy andil naa ko indil xeex naa ko indil lépp Grillage bi dana fatt wala day yaraax ah xoolal rek day tey am nga moom daa dëgër Grillage dafa dëgër waaw est-ce que du non ma kii mënu koo daj. nee na ma da koy daj. mënu koo daj kii fu ma jaar jaaru nga. Hmm. waaw. giraas mi amul la ma koy wax. Hmm. le jour sa dina xeex dina bëri. ah bon neex ko mu xeex. mu naqari ko mu xeex mu neex ko mu bëre mu naqari ko mu bëre kii deful dara kii di tàppet ragal la hmm. dina xeex dina bëre yow ñu dikk la micro yi ngay wax di yor da nga xeex da nga bëre tàppet nga loolu am la ma koy wax na taxaw dëggal boppam rek la jour sa waaw ma teg ko lu metti du man ak moom ba Serigne Saliou du man ak moom. xam nga sew diis bi ngay bëre. xam naa sew diis bu baax. Hmm. waaw loo koy andil. dama koy duma dama koy daan. dégguma dama koy duma dama koy daan. foo teg loolu. billaahi doole rek. billaahi dama koy duma dama koy daan. su xeexee. su xeexee ma duma ko. su bëree su bëree ma daan ko. yomb na de. waaye yomb noonu lay yombee sax su géew gi seetaanal. la kii du maag moom billaahi wallaahi du maag moom seetaanal combat sew diis sa nee na soo bëree mu daan la soo xeexee mu duma la. waaw kii nag moom li may wax ak moom bëriwul. waa parce que li mu wax na na doon lu mu gëm rek. barki maam Sera Fall laa lay waatal su gëmee li muy wax laa mujj du yàgg waaw na ko gëm rek loolu laa am si lu ma koy wax. ñaata combat nga def. kan man bëri naa huit combat. ñaata victoire. si sept victoire benn maximum. sept victoire benn maximum. si waaw. palmarès bi baax na macha allah. kii deful loolu. te du gaaw mu def ko. di nga ko won diisaayu loxo bi ak diisaayu yaram. man weññug raay laa. weññug raay weññug raay. gis nga ni mu sewee waaye saxaara fay daw. saxaara ko ëpp fuuf. man weññug raay fay daw saxaara ko waaw. saxaara ko gën a diis. ah waaye moo fay daw te raay raay koy yóbbu. kon nag kii xam ne man a du man ak moom. ku jaay ku jaay téeméeri màggat suñ la laajee sa njëgu maam du la jaaxal. waaw ah, dëgg neexul. tey wax moo ñu fi dajale wax mënul ñàkk sa adversaire nan nga koy waajale waaw ni ñu koy waajale mooy comme ni ñu waajalee combat yi rek. waaw ñu moom yaakaar naa làmb duñ ci gan. ñun ñam nañ ko. waaw xam nañ li muy ko waa mooy loolu noonu. moom na pare li mu war a pare rek. moom li mu war a waaj rek moom na ko waaj te xam ne wallaahi am na bés. Mm-hmm. am na bés bu baax a baax a baax. bi foo ko teg. combat bi fi ma ko teg mooy ñëw entraîné ànd samay mbokk. ñëw def li ma war a def suñu borom may ma ndam ci kàttanu yàlla te am naa gëm-gëm boobu te loolu indi incha mm. lum la jaral. waaw lépp nag. Mm. lépp parce que dañ ne làmb la foola moom nee na kanam la ci teg de. waaw d' accord xëy na jaral. mais na xam ni moom lu mu ko jaral rek jaral na lu ko ëpp. Mm. parce que lu mu ko jaral jaral na fowuma ñëwuma sax ngir théâtre wala ay ñëw nangam nangam damay ñëw dëggal sama bopp jël li may jël dem. Ah kii du maag moom sax wallaahi du maag moom. sita man Siteu taxumaa jóg. lu tax. barke maam si Ibrahima Fall Siteu motuma ngoon ba mooy mot xëy. foo teg loolu. fu ma ko teg man xam naa ko kii maa ko dox a bëre maa ko maa maa ko ëpp fit maa doole. man da nga def comédien laay bëreel quoi. billaahi dafa am lu nekk si man man wan wax mu ne wu ma ko. Mm-hmm. wallaahi la si wax mu ne wu ma ko. man xam lan laa mën. ma ñëw jour ba ma sumeeku fii ñëpp xam ne man du ma du ma wax kat. mais gis nga mën ngaa taxaw fii nag wax. Mm-hmm. mais su suur baa suñ sumee koo fee fee lay neexee. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaw maa ngi nuyu ñëpp di. nee na moo la ëpp doole moo la mën. non loolu waxam la rek loolu da koo neex muy wax rek loolu da koo neex muy wax rek mais ñun ñaar suñ jàkkaarloo fii nii ñu jàkkaarloo war naa xam ne ëpp ma doole ëpp ma kii. non non mënul nekk. yaa ngi ci ñaata combat. man bii mooy sama premier combat. bii mooy mooy sama premier komba waaw. waaw sa première sama premier combat mooy sama premier victoire. Ah. waaw incha allah. mais nag maa ngi lay ziar fooy jaar gaynde tey Mbaye Babacar aw ma lu may wax dama amel bor samay supporters damaa liggéey lu metti hmm. ñëw juum. dafa am ci loo jógee. liggéey lu metti ñëw juum yàlla may ma ci defet loolu noonu damay wan ne samay supporter hmm. nekkul si man lu yàlla dogaloon la kii su ma nekkee fii nii di wax muy wax daf may yebtu sax du ma moroomam làmb sax boole wuñu waaye kii nga jël avance am naan du moroomam yow tamit nag baal yi ngay def bu bés baa incha allahu rabbi li ma la wax di nga xam lan moo tax ma wax la ko ah man comprendre ma de gaynde sa dalaa xeeb nag li mu wax rek waaw waxam rek la wax. Mhm. nee na damaa xeeb. Mhm. kon waru moon a jël làmb la. Mhm. waaw man damaa jaar si samay moroom di daan ba egsi si moom. waaw sama grand frère la nag champion la làmb ñu boole. suur ba na taxaw dëggal boppam rek. ma defeere ko. del xool caméraman bi del xool ma suur ba na taxaw dëggal boppam. ma defeere ko damaa dégg sànq nga ne su nee rambax. nee bu ne tek waaw tekk woon ko yoon waaye bu nee rambax. dégg paccax. <laughs> loolu mooy lan. mooy bu yaroo ma daan ko jël bu yaru hmm? bu dof dof loo ma dóor ko mu daanu. Hmm. maa ko dàq xeex maa xam nga kii na kan mooy nag bi. yow waay ba xawma la man xawma la xawma la yow doo xeexkat doo xeexkat su ma la jàppee rek defeere la. xale bu ndaw xool ma si biir bët. boo ma xoolee rek nga xam ne du ma. tapé amoo sax xool ma. barki Serigne Bamba du ma sax sa suur ma dama lay dóor nga daanu. far dama lay duma nga daanu. incha allah la xoolal fële kan ceeb doole xoolal fee xoolal fee kan ceeb doole ma la jàppee dama lay defee xoolal bu doonee samedi ajjuma si guddi laa la defee rek nekkal fii di ah? daloo rek yow combat bi bu doonee samedi ajjuma si guddi laa ko daan mbokk yi kii ma taxawal nag kii mooy jaañ moom alaaji gasub Diagne kii mooy saltige Bawol li ñu naan doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg des na la mës ñam te ku juddoo ci bisaab màggee ci daqaar kenn du la laaj forox ndax toll ngay def la nekkoon ci góor gi yëpp mi ngi ci moom. ki nga xamante ne bii mooy Sidi Diakhaté production nag dafa àndandoo ak saltige bawol ma ne ko Sidi Diakhaté production ànd nga ku mët a àndal ànd nga ak bawol ànd nga ak mbayaar wante ànd nga ak njaareem ndax boo duggee Jurbel ànd ak saltige bawol def nga li nga war a def ngañ foo leen toll ci waajtaay bi ak combat yi nga xamante ne bi taxawal ngeen ko bi ngeen koy taxawal ndax am ngeen ci ay jafe waaw mbay ñu ngi nuyuwaat ñëpp euh, di nuyu baax a baax képp koo xamante ne teew nga fi rek euh, Sidi nag euh, amoon yéene dugg si njaareem en tant que promoteur bu dëkk Thiès. loolu ñu rafetlu ko saa su ne li may wax yow loolu xam nga ko sal digg bi amatul jotul làmb sax mais nag sañu ma sama askan soxla ma moo leen di jàppale ma bañ cee dugal sama loxo. sa sa diggante ak Sidi Diakhaté lan la avant tout. waaw loolu moom sama diggante ak sii di Diakhaté lamb la rek. combat jafe woon na bi ngeen koy taxawal wala jafewul. waaye combat ndax combat bi ngeen décroché dafa rëy doomu Mbacke ak buubu Caski. waaw comme combat boobu moom wala combat yi doomu Mbacke buubu Caski bébé Balla Bonis. si biir jamono. Mm-hmm. man rek maa ko mën a décroché. doon nag ndax lamb yi mbër yi. Mm-hmm. mbër yi ak lamb yi ak ménagères yëpp. suñu mm-hmm. borom dogal na man maa leen yëpp te nangul ma ko lool nag. moo tax jafewul doon ci man. ñëwu Sidi Diakhaté fii ci Diourbel noo ko gisee. waaw sant yàlla bu baax a baax euh, rafetlu ko ci ñëw gi nga xamante ne bii moom la ñëw fekk si waa Diourbel. Mm. waaw sant ko waaw rafet nañ ko daal bu baax a baax yéen ménager yi euh, tàllal ko loxo yombal ko. combat waaw yombalal nañ ko lépp wax dëgg yàlla ne parce que combat boo xamante ne bii ne kii na ko rek amul benn amul benn jafe-jafe. Mm. waaw combat yi vraiment teg nañ ko fi ñu ko war a teg ci waa xaalis beeg yëpp daal. ñëpp looy wax Mbassis. Mbassis aw ma lu ma koy wax. ah. wallaahi aw ma lu ma koy wax. dafa am lu tax moom xam na li tax ma wax la. lan moo tax. dul waxu léegi fu mu toll nii. ah mbër. Mbassis sa waay cax de nee na dafa am lu tax nanguwu la wax ak yow te yow xam nga li tax. ah déet man kay xaw ma ci daa gëm boppam rek. lii moom li ma koy wax bariwul. Hmm. ay 45 secondes. Hmm. duñ bañ ko daanu ma ko. ah waaw mais mbër bàyyi xel mi ngay foowe nag xool nga kii sawaay ni mu toll nga daan 45 secondes yow ak moom da nga bëgg a wax sawaay benn ñebbe ci cin la waaw yow benn ñebbe ci cin la kay barke borom daaru kii dama koy daan ah bilaay walaay dama koy daan foo teg loolu gëm sama bopp gëm jël sama ginnaaw hmm. barke borom daaru hmm. bilaay kii dama koy daan hmm. kii taxu ma jóg bilaay walaay kii taxu ma jóg di fàttali axlu lamb comme ni roi des arènes di yeewoo Parcelles Assainies drapeau du chef de l'État noonu la yeewoo fii ci diwaanu Njaareem Jurbel dëkku làmb la Jurbel dëkku aada la Jurbel dëkku cosaan la kon Sidi Diakhaté bu ñëwee tëgg fi journée mën naa ne daa jël mbattu rek delloowaat ko ca ndaa la non man li damaa prouvé parce que Alxuraan kër bi damaa li ma def fii booy booy booy ay. ñaata combat nga def def naa 4 combat 4 victoire. zéro faute. maa la wax loolu. le 20 lan mooy am. kii ndef la ngay wax de alias Labali foofu jaajam. alias. Labali. Laba Labali. <laughs> ndef leng alias Labali. mu ne ma alias ñam. Labali looy Labali. moo kii dama koy Labali bu nooy. xam na bu baax gisoo mu taxaw fii di yàq ay fil di commencé lox yaa gën a xam di pat pat yi. ndef wolu nga sa bopp de. tey mu neex ci la yi fi ma la rek mais xam nga ne maa kii de combat. Hmm. ponk la soxla di ruux. ponkali waaye kii xam nga ne borom soog a na sama kanam. non kii li ma koy waajal moom xam na ko. Hmm. kii li ma koy waajal xam na ko xam na kii tey mu neex. yàgg na maa seetaan. kii bu taxawee dinaa ko duma ba ñëpp xam ne nii duma naa ko. Hmm, kii nee naa la dama koy yettaat. kanam gi laay yettaat kii boo gisee ak ñaawaayam bii nii moom laa bëgg a dem fee ne jël dem si paakaloo jënd jël ab serem di ko yett kanam gi laay yettaat. yow xam nga ni ngay def bant yi nga koy la demee nag noonu laa koy yettewaatee. xoolal fee kii mosquée laa koy def. loo koy def dama koy def mosquée kii dama koy yet maa la wax loolu noonu kii jour komba ba lenn rek laa la wax mu dëggal boppam taxaw xeex man ren rek laa koy ñaan dañ ne dañ ne def lañ dafa mën a xeex mhm. na taxaw man ak moom laa la wax trois minutes man ak moom ñu taxaw ñu xeex man ak moom ah amul reculer ba Serigne Touba bind naa ab cercle man ak moom ma taxaw si cercle bi moom mu taxaw man ak moom ñu taxaw xeex ma duma ko yaa ngi ci ñaata combat man maa ngi si trois combat trois victoire waaw ah, bu amugoo defet non amaguma defet man du ma am defet waaw mais combat bi li ci garaaw mooy ñoom ñaar ñëpp kenn amagu ci defet te le fin il faut am ku daanu man nag xaw ma kan mooy daanu non moom mooy daanu daf leen mooy daanu kooku dégg na muñal yàgg na ah dégg na muñal muñal bi yegg si moom yàgg na loolu waxaatuñ ko. ba mu jëlee avance bi waaw ba mu jëlee avance bi rek la daanu. dafa dafa fekk ka nga xam ne ni ñëpp dañ koy teggi kuñ jox avance am mu daw ko moom mu ñëw jël ko muy tey mu neex. Hmm. xëy na tardement moom moo am si làmb rek ma tardé ba kii mais seetu ma woon def lañ mii nii. Hmm. man ba may bëre fii ñëpp ma xam fii nii njaareem ñëpp ma xam ba may doog a tëll fii di bëre fii nii. Hmm. xëy na tardement laa am si làmb gëj a bëre loolu moo ma jàpp. mais xool ma woon def lañ mii nii. te kii bu jour ba incha allahu rabi lañ vingt laay ñaan yàlla yàlla may ñu may ñu wër may ñu wërle. Mhm. jour ba ma ñëw ma jàpp ko duma ko daan ko kii duma ne dama koy ñëw daan ko dama koy ñëw forcer ko duma ko daan ko loolu laa koy def. mais ñam dafa mel ni adversaire am ñëwul xaw ma nag lu ko tee ñëw xaw ma dafa ruux xaw ma dafa daw xaw ma dafa nekk ci entraînement yi. Hmm, sa adversaire Zarko loo koy wax. sama adversaire amul leneen lu ma koy wax parce que moom ñëwul. Hmm. bala moo gën na neex moom mu ñëw. Hmm. ku na xam li ngay wax sa morom. ñëwul mais mi ngi lay seetaan nii ci télé bi loo koy yóbbante. non li ma koy yóbbante mooy que yàlla na ko yàlla defal jàmm. ba bis ba yàlla may ma ndam si kawam loolu laa koy yóbbante. mais mais ñam xam dañ ko gëj a gis ci làmb lan moo tax retour bi lan ngay andi. no retour bi moom du yomb. Hmm. lu saf saf laa indi parce que benn moment dama bàyyi dama tegoon làmb ji si suuf parce que. am na yenn activité ya nga xamante ne daf ma ko doon xañ quoi. Mm-hmm. muy sama wàllum jàng ak mm-hmm. mais bi ma demee jàng ba nga xamante ne man atteindre atteindre naa sama objectif. Mm-hmm. si la retourne waat ma gis na booy ya nga xamante ne yu bëri dama leen fee bàyyi woon. puusuñu. demuñu dikkuñu waaw. nga bëgg ñëw defal leen bagage. a ah, loolu laa bëgg de. mbaa mbaa def bagage bi du féetee ci beneen côté bi. man daal maa ngi ñaan yàlla yàlla may man dam si kawam. loolu kese laay ñaan yàlla aussi. di woo ñëpp ñu ma doon jàppale si combat bi. Mhm. di leen xamal na retour lay def te retour du yomb. ñam xam Isbak. Isbak. ñu taxaw nag ak Sidi Diakhaté taxaw ak waa CRG bu jurbel ki nekk sama wet mooy Etienne Ngom di vice président bi Etienne ñu ngi lay nuyu di la ziar di la laaj ñëwu Sidi Diakhaté fii ci Diourbel en tant que membre CRG noo leen ko gisee. gërëm yàlla di sant ki nga xam ne mooy Sidi Diakhaté ci li nga xam ne defal na ko Diourbel. parce que tey xale yi fi daje yëpp maanaam mën naa jàpp ne mooy vainqueur yu Diourbel tey yaakaar naa bés boobu jotee ku namm làmb di nga ko gis def na lu rëy nag mhm. lu rëy mooy ñëw jël li nga xam ne mooy euh, wex wextal yi nga xam ne ñoo nekk njaarim mhm. mu boole leen ci benn journée mhm. mu nekk affaire bu am solo mu nekk la nga xam ne njaarim da ko soxla woon mu toogee nag ba mu ñëw andil ñu ko mun ñu def la dul gërëm ko sant di ko xamal rek ne Serge dina ko gunge ci bés ba ci ni ko war a gunge te yaakaar naa ne bu ñëwee bu dina dellusiwaat. ndax dinañ ko defal la nga xam ne euh, promoteur jaar na fi te defaluñ ko mm. parce que nag aussi ni mu taxawee mm. moo tax mm. parce que ay promoteurs nationaux jaar nañ fi ni mu taxawee tey taxaw ni xale yi su fee am kon bu ko defee wàllu Serge mooy jàppale ko ni mu ko war a jàppale te fas yéene nañ ko jàppale dinañ ko taxaw ni ñu ko war a taxawee suñu ñëw fii dañu fi ñëw ngir làmb mais nag dafa am jëmm joo xam ne ñun fu ñuy jëm rek kasikatam la ñuy yóbbaale mooy di Diakhaté production muy nit koo nga xamante ni ku nekk xam na taxawaayam ci làmb ci biir Sénégal laay wax ndax waxatuma di Diakhaté bu cees waa Thiès sax jamono ji yëpp wax ji bari na parce que dañu yaakaar ni ñoom rek ñëw moom Sidi ca Sidi international la ndax ni ma la koy waxee fii mu ñëw ni ci Diourbel le 20 mars bu ñu fi jógee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mbuur la ñuy njëkk a jaar bu ñu fa jógee dem fu mel ni Louga doog a dellusiwaat sax Thiès gi nga xam ne fi lañ dëkk kon mu mel ni kon Sidi Diakhaté du benn raison moo ko moom Sénégal moo ko moomal boppam njaarim nag man maa fi am ay soppe am fi ay xarit daan fi seetaan si làmb gis ñu bëgg làmb lool mu ma ni ku ci jàpp ku leen jàppale seen làmb mën naa gën a dem ci kanam defe naa ma fiy ñëw interview fi njëkk jël yow yaa ma ci jël laaj ma lan nga gis ci làmbi njaareem ci luñ ci war a yokk la ma la ci waxoon ba nga ni ci tànk yooyu laa mooy gis ku leen jàppale am nañu ay mbër nanga nañoo seetaan si mais amuñu ay promoteurs yu leen di tëgg loolu mooy sababu comme am naa fi ay soppe ma waxtaan si ak ñoom ah bi ñu déggantee ku mel ni xaw ba ci ngañ saltige bon buñ ma xamalee loolu ni ma vraiment bëgg nañu nga ñëw fi Sidi nag comme man yàlla dogal na muy sama mag ma bokk ci ay conseil am lépp lu ma gis loo xamante ne làmb soxla na ko rek daf ma naa naa ko ko wax bi ma ko waxee ni nañ def Jurbel daf ma ni loolu du ma ci teg baat ni ma demoon naa fa seetaani fa làmb am fa ñu ma fa xam mais comme yow yaay sama porte parole di sama loxo ndeyjoor xoolal kan nga fay orienté mm. ma waxtaan ci ak ngañ comme ngañ sama genn wàll la mm. mu ñëw waxtaan ci ak Étienne ñu taxawal fi bis bu mel nii may sàkku ci waa njaareem bis bi nekkatul bisub ngañ mm. nekkul bisu Babacar nekkatul bisu Sidi Jaxate bisu làmbi njaareem la nan ci jàpp làmb ji réussir ñu am promoteur boo xamante dafay basé wu comme ni mu basé wu biir Thiès parce que waxuma la euh, fii ngeen di wax ay drapeau chef d'état mais làmbi korité buñ jógee ci làmb ji incha allah bala ñu fee jógee mën nañ fee taxawal combat korité loolu moom dañ leen koy promettre bala ñu caa egg pour mu cadre bu gàtt daal mooy dama bëgg dama leen koy dénk li ngeen di def ci làmb xam ngeen ko promoteur bu nekk jaar na fi mais bu fi ñëwee ba nga xam ne promoteur bu ak lan nga réserver waa Diourbel incha allah le 20. Euh, Babacar maa ngi lay nuyu bu baax ngay suma turandoo euh, di gërëm di sant waa Njaareem dama fi ñëw seetaan fi làmb naat fi làmb mu nekkoon Bobota ci stadium bi ma gis organisation bi ni muy demee xam ni ñuy bëgg nañu làmb te mérité nañu aussi ku leen gën a jokkaat doole parce que CRG bi gis naa ne ñu ngi appuyer jeunes yi bu baax a baax loolu ci idée boobu ci laa amee woon. bon ma waxtaan ak yenn promoteurs yi fi nekkoon ñu accueillir ma noo xam ne nag keroog suma xol seddoon na. Mhm. ma ñëwaat fi deuxième fois troisième fois yëpp di assister làmb. ba benn bis ñu tuddee fi sama benn xarit aussi Dame Diop benn làmb. donc monsieur le ministre Dame ma koy nuyu baax donc suma xarit la ma ñëw fi donc ànd ak ñoom ñu ñëw ci làmb ji. donc boobu ba léegi daal suma xel mi jàpp ni fii war nañ fee tëgg ba tey jii yàlla nga koy soog a dogal. Etienne mhm. waxal ma le président bay jaw président du CRG de si Sidi Diakhaté ngi koy gërëm di gërëm képp koo xam ne membre CRG bi mais bi ñu jëkkee ñëw fekk la fi lépp loo xam ne bu fi président bi nekkoon loolu lay def def nga ba def lu ko raw parce que accueillir nga ñu dans les meilleures conditions may gërëm tamit képp koo xam ni doomu njaareem nga rawatina nag di féliciter aussi l'ensemble des lions du Sénégal ci Coupe d'Afrique bi ñu jël rawatina nag doomu njaareem bi nga xam ni keroog donc ku nekk gis na muy Mouhamadou Bamba Dieng ku nekk gis na ni moom c'est un grand lion donc bisu làmb ja sax incha allah dinañ avant lamb ji dinañ dem waxtaan ak ay waajuram pour war ni ko ñu xale bi dinañ ko ci defal cër bu am solo parce que mérité na ko moo waral ñu jël initiative bi ni dañuy jafe làmb bi fii ci cadre décentralisation boobu nag képp koo xam ne aussi jëkk nga maa gis waajuram aussi bayo boo nga wax ko ni ko kat ah làmb ji mag ji Sidi Jaxate di tëgg Ceesal nee na pour delloo waat njukkal suñu doom suñu jarbaat muy ki nga xam ni moom la yàlla def moom rek keroog moom moo doon représenté drapeau Bawol bi yëpp mhm. donc euh, muy euh, sëñ Ahmadou Bamba Dieng